man Souleymane laa tudd. waaw Souleymane ñu gis ki nga xamante ne tey mooy Balla Gaye ñëw si Balla Gaye Bombardier mais ñu fekk leen fi nga xamante ne mooy géejewaay ngeen xam lambu yàgg ci lambu lool tey combat boobu lan nga ma ci mën a wax. mere Balla Gaye rek mere ko. Balla Gaye moom mere ko rek lañ def ñun waaw mere ko kese lañ def parce que kontagul Balla Gaye indiwul condition ci làmb ji kontagul mbër nag du dem France te nekk fooy déedéet mbër contact la waaw. Balla Gaye contactul ci combat bi de. mais bu sumeekoo nañ avant muy sumeeku affaire yi du muscule boo contactee da ngay am doole ku la bu la xool bu contactoon dañ koy xam parce que dañ koy seetaani buy contact dañ koy seetaani mais contactul. Balla Gaye liggéey ci ci làmb bi des ci kanam diggante Boy Niang ngir bëri la ëmb di dem ci école bi. saal bi bu fa jógee di dem ci école bi takk ngemb il faut mu dellu takk ngemb Balla ko dàq bëre kenn dàq ko bëre amul mbër mu ko dàq bëre amul mais nag mbër contact la boo bàyyee li la far mu doy waaw ñoom ci contact la ñu débuté ci lañ leen xam ci mbapat yi topp ko fu ne Balla Gaye xoolal seen galaa bi Balla Gaye bu bekk suukar yi ci kaw la commencé ba ci suuf da ngay gis bekk suukar ab domino yi ci kaw ba ci suuf d'accord nag fi mu nekk nii mag la mais nay kontak nay contact parce que mën na bëre nay contact. Cheikh Fall Cheikh bu ñaaw bu daw Cheikh Fall bu booy ñaa <laughs> Cheikh Fall bu Balla fekk la fi nga xamante ne mooy géejawaay ñu fas yéene waxtaan ak yéen li nga xamante ne mooy jëm ci combat Balla Gaye bi ak Bombardier li nga xamante mooy bëri nañ kolo le premier janvier yéen en tant que doomu Géejawaay en tant que yi nga xamante ne xam ngeen làmb yàgg ngeen nekk ak Balla Gaye keroog lan ngeen gis. làmb ji moom nañ ko gisee maanaam mooy Balla Gaye def na lu mu waroon a def lépp yàlla suñu borom nag mooy maye ndam te jour boobu moom maye ndam bala Gaye de waaye Balla de ku ko xam-xam ne du jël xaalisam di ko fay dem France ñaari yoon préparer combat bam yabul yabul waxuma Géejawaay de yabul sax ñoom Aziz ñi nga xam ne dañuy sonn si moom xanaa bisu ndam. bisu ndam la bisu defet nag bisu defet la kenn mënul woon a ñëw ba Balla gay am ndam jur boobu ñu ngi koy ñaanal des na yeneen combat lek nekk si kanamam te Balla Gaye de du gan si làmb xam na làmb bu baax li ko doon may ndam xam na ko li ngay xañ ndam xam na ko na gën a góorgóorlu xam ne géejawa yëpp ñoo ngi si ginnaawam di ko ñaanal combat yi ko dese yëpp yàlla na ko sunu borom may ndam lu gën si moom. keroog la ngeen gis ni li nga xamante ne mooy Balla Gaye ci combat bi ba ba ko par rapport ak moom ki nga mooy Bombardier lan ngeen gis nag seen mbër lii ma parce que bañ bañ dalante ñoom ñaar kun yéen ñi nga lamb am na lii wala Balla Gaye indiwul moo moo ko def moom moo dem soogu Bombardier wala Bombardier est-ce que song na Balla Gaye Balla Gaye moo ko song moo xeex ak moom waaw Balla Gaye moo def li lamb laaj yëpp moo ko def jour boobu Bombardier nit ku ñëwee Bombardier ak ni mu toll bu ñëwee ne bëriwu ma foo koy daanee gis nga gars yi nañ analyser quoi Bombardier ni mu toll Balla gay de dugg jàppanteeg moom bëreeg moom bëreeg moom xam nga bu ñu nee Bombardier bu ñu doon bu Balla Gaye entraîné damay jaaxal ak Balla Gaye ni mu bëree jour boobu ak Bombardier ak Bombardier ni mu toll Bombardier moo sut Balla Gaye xam nga loolu moo ko sut moo ko ëpp kon daal ñun daal li ñu bëgg mooy waa Géejawaay nañ gën a góorgóorlu gën a nekkaa si ginnaaw Balla Gaye 2 li ñu defal si làmb amul benn mbër bu ko defal benn naa ñun si lam mais Balla Gaye keroog li mu bëree combat mi yi di ñëw ci kanam ku ci mel ne Boy Niang Eumeu loolu dina est-ce que loolu dina ko arrangé ak poids bi mu yor nii ak keroog li mu bëri. waaw déggoo li ma la wax nee naa la Balla Gaye xam na li koy may ndam xam na li koy xañ ndam dina dem gëna gën a góorgóorlu xoolaat yoonu làmbam bu baax a a baax ñun daal loolu lañ mën a wax si Balla yàlla may ko defal nañu lu ne bëggalee nañu nu ne man du ma xarab du ma mus a xarab Balla Gaye dama koy ñaanal li def si combat am yëpp leer naañ naañ loolu lañ koy ñaanal. jërëjëf jërëjëf. waaw combat bi metti na lool wax dëgg yàlla metti na metti nañu ndax ñun bëgguñu ku dul Balla Gaye bëgguñu ñu dul géejawaay Balla Gaye bu baree géejawaay lay tudd bu daanoo ñun lay tudd mais combat bi ñun luñ ci jàngat suñu jàngat bu gàtt Balla entraîné na def na li mu war a def def na lépp sunu borom nag moom moom ndam ko neex la koy jox. ñëw na Bombardier gën koo pare ci làmb ji bi nga ko gënee pare ci làmb ji Bombardier sunu borom ànd ak moom écharpe bi yëpp Balla Gaye lañ àndal. lan nga gis la manqué. non Balla Gaye man pour man ci lu mu manqué mooy physique contact bu xaw a bëri tuuti la Balla Gaye manqué ak gën a physique gën a wàññi poids bi tuuti ndax Bombardier boo koy daan il faut ngay dugg di génn mën ko daan Bombardier comme Balla jàpp na ko ci ngemb mënu ko daan ñu taxaw ñoom ñaar lu mat cinq minutes Balla jàpp fi mu daan jàpp gars yi di leen daan mu jàpp ko fa mënu koo daan kon am na mais nag làmb noonu la day dem defaruwaat àndaat ak ay mbokkam ñu mu war a ñu mu war a ànd rek toogaat ci géttam sunu borom bu bëraatee beneen yoon yàlla may ko ndam. làmb yi ne si kanam ba Balla li mu bëre keroog combat yi ne si kanam moom euh, est-ce que loolu seen dal na seen xel. non Balla du bëre waat lii ndax Balla ko xam-xam na champion la lii du amaat Balla ñu ko dar ay champion ñoo ko dar. ay ay doomu aadama ñoo ko dal ñoo xamante ne ni Balla Gaye jaral ne leen ay cent millions cent cinquante millions kon Balla Gaye lii mu bëre nii xëy na cat àdduna bi yëpp ànd ak yow état bi ñëpp ànd ak yow cata ko topp rek lii dal ci kawam mais. entraînement léegi ji yoon ay ñoom ñaaxarañ buuse waa kër Aziz Ndiaye ñooñ ñooñ ñooñ euh, est-ce am na lu ñu mën a apporter Balla Gaye ci ci ci côté làmb. waa mais xam nga buuse dafa bëgg Balla Gaye ñaaxarañ lu xaw moo ko mën mënuma wax ci moom mais buuse xam naa ko buuse dafa bëgg deretu waaye mooy daw ci kawam dafa bëgg bala gay xëy na nag làmb yu bëri Balla mi ngi ko doon sinab ñu koy génnee man su ma sañoon duñ ko génnee sama gis-gis bu gàtt ndax Moustapha Gueye booy xoolee bi muy tojlee ci làmb bi ñuy génne ni ko yaayam doon ñaanalee foofu la Moustapha Gueye commencé toll ci làmb Balla Gaye léppam dañ ko génne ci làmb te loolu daf ko war a dindi sama gis-gis bu gàtt loolu daf koy yàqal lu bari bëri sinab yi àdduna moo changé léegi loo def ñu sinab ko génnee ko sa préparation lépp ñu bokk génne na na na bañ loolu Balla Gaye buy watu ñu filmer ko lu muy def ñu filmer ko loolu moom bu ma sañoon man daf koy wàññi. bañ daanoo njax ci ginnaaw saako Balla Gaye daanu foofu noonu yen yéen moment boobu lan ngeen yëg ci. waaw boobu li ñu yëg mooy tristesse la ñu rek lu metti moo ñu dal mais tamit arbitre bi daf ko beneen arbitre bi daf ko signalé ci loxoom moo tax arbitre bi nanguwul nangu nanguwul nanguwul kii bi quoi sit bi ndax beneen arbitre bi ci wet gi boo doy xool moom moo yëkkati loxoom kee doo ko sifflé noonu la fa demee quoi mais bi mu daanoo noonu daf ñu metti daf ñu meti ndax combat bi daf ñu metti bu ñu la waxee dëgg rek combat bi metti nañu mosuñu bëree combat bu ñu mettee nii. waaw. lan koy conseil ma koy conseil daal mooy mu ànd ak ay mbokkam ànd ak ñamu daan àndal. waaw ànd ak ñoom daan àndal gën a entraîner gën a yokk physique bi bu amee combat deux mois avant na ñëw fii topp meex mi topp din yi contact bu bëri jël dix booyam contact ak ñoom ñoo xamante ni am na ñoom am na ñoom confiance ndax làmb dafa fiir man lool rek laa koy conseillé ah waaw. ñu lay jaajëfal jaajëf. Aïda Sadi laa tudd. ngeen jël si lamb jooju defet tey lan ngeen dundee defet bi ak lan ngeen di wax tamit seen mbër waaw loolu moom metti nañu torop ndax buñ sañoon moom day am comme day day am euh, nu mu koy wax victoire chaque jour waaye keroog moom xëy na loolu la ko yàlla dogalee waaye nag nañ nit ñi nañ nañ xam ne Balla daan nañu bégal Balla daan nañu yóbbu fu ne kon nag tey lii bu amee nañ sant yàlla te sénégalais yi lan lañ mën mooy ñoom tey rek lañ xam waaye duñu xam démb man moom Balla tey laa ko gën a bëgg. ni mu meloon ci man démb noonu la mel ci man tey yaa ngi dégg waaw waaw loolu daal waaye nag maa ngi koy ñaanal nag mu am boo amaatee beneen na ko yàlla may ndam waaw. ba ba ba Balla Gaye keroog summee ko te keroog gi ba ba ngeen ko gisee lan ngeen sentir lan nooy na torop ngeen gis moom gisuñu Balla daal waaw daal nañ gis Balla waaye démb keroog moom ba mu summee ko moom gisuñu ko. waaw gisuñu ko moom nooy a nepp daal danoo bëgg nag Balla muy dëgër këkk waaw. ok merci beaucoup. Amar Ndiaye ngeen dëkk Géejawaay ah seen mbër Balla Gaye bëre ki nga xamante ne mooy Bombardier keroog ñu gis keroog lamb ji ni mu demee keroog combat boobu keroog a man Balla Balla sama la mais keroog Bombardier laa faral. moo tax nga faral Bombardier. Bombardier dama yàgg la. faral ku muy bëri moom laay rek keroog moom xam na ne wax dëgg yàlla dañ man te maa ngi koy conseillé moom dara bala di ko wax ne bu muy bëreeti bu muy bu muy tëkku mbër tëkku baaxul nga am sax mais yàlla mën na la wor parce que tëkku nit moo baaxul te moom dafay tëkkoo nit ni asa borom góor nga ne du ma naa daan xam nga ne loolu tëggoo ko fenn nit ki boo ko mën ëppul doole am na foo xam ne nii ba mbaa jee boo ko daan da koy nax da koy nax mais kenn du bëreeg moom corps à corps Tapha da koy jam arrière noonu lay bëreeg moom mais fekkee ne a ñëw corps à corps bëreeg moom loolu kenn du daan Bombardier. ma Balla gi sumee ko lan ngeen gis ci Balla. Balla gisoo biir bi day lang amul amul amu ko ci biir encore contact defu ko. premier seen seen seen kii bu njëkk fa la sonné contact bu njëkk fa loolu am na si moom. waaw ah oui dama koy moom Balla man kay mu gën a wutaale encadrement yi baax parce que ñii ñi ko topp nii dëgg la am nañ xaalis mais xamuñu làmb te làmb dafa am ñu ko xam ñoo tey fekkoon na tey jii fekkoon na fi papam wala mu fekk fi kii bin songay ba àttee ba ñëwaat dana ko conseillé ne ko bul bëreeti nii ku amal ki mais ñi xamuñu ci làmb fa man am ñu ko kii dana ko ko conseillé ne bala fekkoon ko bàyyi ci maninam kon kenn ko daan ok merci beaucoup incha allah jaajëf Mamadou Thiam laa tudd gis ba comme waalo waaw di la wax ne man depuis arène Sénégal laa commencé seetaan làmb ba stade Assane Diouf di ko seetaan ba fi ma toll nii dama ni mbër day naqadee daan dama ni Lac de mooy mbër mooy champion bi mooy mbër mi gars yi nag ña ngi koy contre waaye bu ñu demee ba ca kanam daañu xam ni mooy mbër. mais keroog Balla Gaye ak Bombardier li li Balla Gaye bëree foofu loolu. waaw ah, Balla Gaye ni mu bëree bëri na mais maanaam ni ma gisee bëree bi Balla Gaye ni mu bëree li ñëpp wax maanaam mooy dëgg parce que ñu ni Balla Gaye dafa manqué contact te keroog ci combat bi wane na ko wane na ni. suñu mbër suñu mbër la parce que ñun waa Géejawaay mais waroon nañ ni keroog ci biir combat bi dafa manqué compétition. waaw te ba mu sumee ko noonu ñu par rapport Balla Gaye mu sumee par rapport bi mu sumee ko contre ak bi mu sumee ko contre Bombardier du benn. parce que contre Modou dafa ni ñàpp waw koŋ mais contre Bombardier ñëpp dañu gis ni biir bi mi ngi wàcc. kon donc contact bi ñuy wax des parce que demoo nekk foofu di yenu ay poids dugg ci suuf si waaw dugg ci saabal bi contact ba wow koŋ Balla Gaye contact la ko ñëpp mës a xamee na dellu si lu mu nekkoon dafaat ko. 100 pour cent géejewaay bi mbëri yi nga xam ne ñoo ànd toujours di jàppale si yenn contact yi mais bi bi combat bi ñoom gis ñu ci ginnaaw bala Gaye lan. ah waaw loolu dama jaaxal na ma nag wax dëgg yàlla loolu moom Balla Gaye nga koy laaj ndaxte xëy na moo xëy na moom ñoom ñoo xam ni ñu ko seq wala dara mais si open press am gis naa ci Lac de Guiers mu ànd ak moom waaw mais nag ci làmb ji dañoo tere ni képp koo bokkul écrit buy bëri amoo droit dem ci suugam xam naa loolu tax waa géej parce que bokkuñu écrit kee école de Balla Gaye ne ki écrit waalo guy gi nekk école euh, Mor Fadam donc bu kenn daan bëri si ñoom mën nañ ñëw sa open press mën nañ ñëw sa entraînement mais buy demee ci làmb ja duñ fa doo doo mën a dem ci moom quoi waaw loolu rek la waaw ñu ngi nuyu ñëpp nag